mooy lëkkaloo ak secteur bu ñàkk l'éducation bi fii ci kaw lu ci mel ni IEF ak IA programme

du daara yu kaw yi rek maanaam du école moom yi rek waaye dara ko ci bi dem ba si primaire si seet ba si lycée bi sensibilisation bi kon dafay jaadu aussi way jur yi euh, solo mooy xale bi ñuy dem école ñu leen di préparation boo xam ne du ñu soxla dara ci seen morom bi duñu dem c'est-à-dire dañu mettre en évidence contact yi nga xam ne dañuy def à l'école ñuy ñu naan defal échanger am beaucoup de beaucoup de partage dafa di suñu sàkk bu ñu mënta am chel aussi saa suñuy dem Gabon dañu peut-être gars yi prévoir nañu nekk benn lavage si biir école yi su ko defee ñu raxas seen loxo yi bañ di nëbbatu di lax di am fu ñuy jaar ñu mel su ko defee ñu mën a respecter yenn ci mesures barrières yi ndax jàpp naa ne bi xëy na du lu ñu mën a euh, mën a liggéey ci biir école mais fexe ba yenn yi ñu mën ko mën ko respecté mooy bu ñu dem bu ñu soxla ndoxu kenn di ñu soxla mburu kenn loolu yëpp nag waaye jur bi moo ko mën a préparé doomam ci biir kër gi pour mu ànd ak moom d'accord mu mel ni que na benn taxawaay euh, par rapport euh, ak li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi ak loolu nan lay defee waaw li ci indi mooy ñu tamit en tant que des xam jafe-jafe bi nga xam ne Sénégal traversé ci weer yi weesu jafe-jafe boo xam ne euh, réew yëpp dañu menacé woon la Covid bi menacé woon donc secteur yëpp la Covid bi menacé woon waaye rawatina jàng nekk njàngale te xale yi nii dañu nekk ñoo xam ne ñoom lañ yaakaar ëllëg pour ñu yor réew ba yàlla bu ñu koy jubbanti te ba muy tooy la mais bu wóoree boo ko bëggee jubbanti dafay daw moo tax ñu jàppale à base ci fi ñu toll mooy xale fi ñu toll fi leen war a mën a tàggatee tàggat boo xam ne mooy tax bu ëllëgee ñu mën a yor réew tàggat boobu nag comme lii la ñu toll rek ñu ko déglu donc ñu fexe leen ba ñaax leen ñaax ci seen i wéy boobu ëllëgee benn situation bu mel ni ñaar ñu koy am waaye bu amee ñoom aussi ñu mën a transmettre message bi nga xam ne moom lañ leen woon légeewoon ci ba ñu doon ndaw su ko defee. yaakaar naa ne dinañu am jeunesse bu responsable face à par exemple situation yi ñu toll ci réew mi rëkk-rëkk nga xam ne moom moo tax jafe-jafe yi yëpp su ko defee fi ëllëgee ñu gis ñu taxaw comme ay leader comme ay kilifa ci réew mi mën a defal seen bopp waaye mën a doxal également ndaw yoo xam ne ñu mën a seen man dama ci xeex li tax jàmbaar lañ ci mooy euh, dem nañu ba xeexat moom guerre moom ba ñu toll fi ñu toll macha allah.

ndax ñu jàppoon foofu kese la ndax gis nañu ñu wàññeekoo te bu ko ñu wàññeekoo ak yem ci dafa war a jeex ci